Euh, alors. Mhm. Kébé Ndiouga Ali. waaw sa jàngat ci bile mbir. <coughs> waaw waaw xam nga euh, ci côté boobu noonu ñenn ci yorom xam-xam yi xëy na dañ ci am tuuti gisee. Mhm. entre le 31 bi ak li nga xam ni mooy la 11 août. Mhm. parce que ñenn ñi euh, en tout cas selon docteur mbay moom jàpp nañu la la la dissolution de l'Assemblée nationale avant le 11 août. fera une violation manifeste moom loolu la jàpp. parce que jàpp na ni 11 août. carrément la la assemblée nationale di soogee am li nga xam ni moom moo di ces ces deux ans parce que dafa jàpp ni euh, c'est la date bi nga xam ni moom euh, la waa conseil constitutionnel. Mm-hmm. joxe li nga xam ni moom moo ji les résultats définitifs noonu en tout cas noonu la ko noonu la ko jàppee mm-hmm. euh, ba tax mu jàpp ni date boobu moom mooy nekk date bi nga xam ni bu ñu ci àggee mm-hmm. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, dootara euh, quand même li nga xam mooy les les prérogatives pour mën a li nga xam ni moom moo di cette assemblée nationale. léegi ak léegi jàpp si 11 août bi quoi. a jege baaw jàpp moom nee na juillet bi ah. mi ngi wax ni voilà mi ngi wax ni du du du du 31 juillet. Mm-hmm. du 12 septembre. Mm-hmm. mais 11 août la jàpp ni moom moo nekk date bi nga xam ni bu ñu ci àggee. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag laa dina mën a tas tasar li nga xam ni moom moo di cette assemblée nationale bi ak lu ci mënti am assemblée moom na rek. li président li Khalifa Sall doon naan naa bokk. mais mm-hmm. assemblée bi moom na tas rek. ak lu ci na tas rek. <laughs> bu ci bu bu dee 11 août bëgg nañ. bu dee trente et un na mais na tas rek parce que hmm. cette assemblée là dama yaakaar que ni eh, premièrement man li tax ñu war ko njëkk a tas mooy que ni gis nañu élection yi ni nga xam ne noonu la fa déroulé élection élection législative yoo xamante ni si ni pour la première fois ñu gis liste suppléant ay remplaçant dem titulaire yi ñu leen da ngeen di toog beneen liste boo xam ne ñii titulaire yi dem remplaçant yi da ngeen di toog loo xamante ni si yi sax dañu étonné woon maanaam lii naka la mën a nekk en Antoine Félix Diome mu toog fi nekkoon fi doon def loo xamante ni si kenn mënu ko woon a comprendre moom sax mënu ko woon a expliquer. Mhm. ñu ni deet waay yamu ju ñamuñu ñu dem ci élection yi nga gis ay image ay ay ay ay ay ay xale yoo xam ne ñu ngi voté. Mhm. ci âge boo xamante ni si daf lay wër ni ñii nii xëy na ay 14 ans la ñu am. Mhm. ay 15 ans ñenn ñu jàpp ñu loolu fraude la. beneen bi ci des mooy Déthié moo nekkoon mandataire coalition Yewwi Askan Wi. mu nemmeeku ka ni am na ci yenn ci gox yoo xamante ni si ni lafa la mhm. moo ëpp sax li nekk ci fichier électoral bi. ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu sëgg ci jàll mu dem maanaam. si élection man mu saisir mu saisir si <laughs> gaay yi gars bañ na ne. c'est ça yoo xamante ni si nii pour man amul benn légitimité pour man. Mhm. yamuñu ca ñu dem biir assemblée nationale ñun ñëpp gis nañu. le président de l' assemblée nationale naka la ñu ko installé biir fa nga xam ni moom mooy assemblée nationale. jaay doole gu mat sëkk woo ay gendarme mu ñëw installé ko by force. Mhm. yamuñu ca ñëw gis beneen député boo xam ni ci s'appelle Mimi Touré ñu nangu li nga xam ni moom moo di son mandat de député. c'est-à-dire assemblée bi quatorzième sept quatorzième législature li fa am ci ay ay ay carence yoo xam ni tey dama jàpp ni mën na tax ñu dissoudre cette assemblée nationale dafa bari. d'autant plus que li gën a mooy ci ci bis boobu maa ngi ko Farba Ngom ñëw indaale 83 procuration procuration ñoo xam ne ñu ngi fi toog procuration ñoo xam ne newuñu fi maanaam di def lu ko neex. ça en fait maanaam c'était quand ñu jégal ma du du tey quoi. Mm-hmm. Euh, parce que ñoom ñi ngi ci nguur gi jàpp nañu ni euh, il est hors de question ñuy perte li nga xam ni moo di euh, cette majorité à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. alors que dañu waroon respecter li nga xam ni moo di la volonté populaire. askan bi ñoom ñoo dugg ci biir urne yi même su fekkente ni vote bi. privé nañ ay xale yu bare bari ay ndaw yu bare bari mënuñu woon a voté mhm. tey sénégalais yi voté woon a kës néew dañ li nga xam ni moom moo di seen ay choix defuñu ko ñu euh, boole woon ci jaay doolu ni si ni sénégalais yu ci bare bari dañu toogoon doon mhm. euh, boo xamante ni si ni yenn ci député yi yenn ci ministres yi bi ñu démissionné wala yenn ci ministres yi nga gis ni euh, dañu fa dugal moo tax man je contre pour cette muy la liste national bi nga xam ni tey ku la neex. Mhm. mën nga ko jël def ko mu doon député. Mhm. looloo waral tey assemblée nationale nga gis fa ay kuramaki nga gis fa ay ñoo xamante ni si ni yow dafa lay wóor ni tey mbubb bi nga xamante ni si ni moom la yenn ci ay kàngam daan sol di dugg biir assemblée nationale nekk des euh, représentants dignes de ce ku mu neex tey mën nga ko sol dugg biir fa nga xam ni moo di euh, assemblée nationale te jàpp naa ko ni loolu lu ñu war a xoolal la parce que mm-hmm. assemblée nag waxuñu kenn waru faa dugg mais nag boo fay dugg waxuñu bon nga ñàkk a jàng tubaab ak jàngoo tubaab mais am na yenn ci comportement yoo xamante ni mm-hmm. si ni wax dëgg yàlla booy toog ñun ñu daan ñun ñuy dem biir assemblée nationale eh, di di di couvrir eh, di fay yenn des fois bu caméra yi fayee ak yenn ci comportement yi nga fi gis yow ci demande vraiment est-ce que ñi xam nañu réellement eh, li nga xam ni moom la leen fi askan wi indee moom la leen fi askan wi tegee et c'est malheureux loo xam ni yow da nga maanaam ñoom ñoom ñoo yore le pouvoir législatif dañu yore un pouvoir. Mm-hmm. comme ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yore le pouvoir exécutif. Mm-hmm. pouvoir judiciaire ci wet gi. Mm-hmm. mais ñoom dafa mel ni que ñoom xamuñu réellement euh, solo si nga xam ni moom la ñoom parce que ñoom dañu leen a euh, élire comme ni ñu élire euh, le président de la république yaakaar naa que ni tey boo demee ba gis seen député yoo xamante ne si dem nañ ba ñoom xamatuñ seen rôle à cette assemblée nationale man dama gëm ni pour ñu dissoudre ko si une demande sociale boo xamante ni si ni tey Sénégal yi dañu ko soxla bu baax a baax beneen bi ci des mooy tey politiquement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa soxla dissoudre pour mën a dem nag. ci yeneen élection présidentielle yoo xamante ni nii ni Sénégalais yi dañuy mën a exprimer wu librement ndax ñoom nag dañuy soxla une majorité foofu la nga xam ne moo di assemblée nationale pour mën a nag jublu euh, ci yenn yu bare bare yoo xam ne dañu ko digoon askanu Sénégal. Mm-hmm. loi d'amnistie bi tey. loi d'amnistie bi tey boo dugaloon sondage di laajte ndax dañ koy euh, abrogé wala duñ ko abrogé. Mm-hmm. mais quatre pour cent des Sénégal li la wax nañ ko dindi. Mm-hmm. mais cette assemblée bi nga xam ni moo ko voté woon moo fi nekk ba tey. Mhm. est ñoom bu ñu amoon volonté dindi ko itam bu ñu demee assemblée nationale dañ ko mën dindi non mhm. parce que ña ko voté woon ñoo fi nekk ba tey parce que ñoom bi ñuy vote bi ñuy voté affaire yi dañu abstenir mhm. voté kon yaakaar naa que ni euh, loolu rek euh, beneen aspect la boo xamante ni si nii tey ñoom dina soxla euh, ak yeneen i digg yoo xam ne defoon nañ ko askanu Sénégal supprimer ci yenn ci ci kii yoo xamante ni si ñoom jàpp nañu ne amulul njariñ askanu Sénégal. Mhm. xaalis képp dong la mu ci mel ne HCTC CTC ak yeneen i yoo xamante ni si ni ñoom jàpp nañu ni yaakaar naa. institution en fait. Mhm. kon loolu dama jàpp ni. tey économique euh, motivation motivation la. Euh, pour que ñoom ñu tas li nga xam ni moom moo di assemblée nationale bi pour nag mën a dem ci yeneen i élection législative yoo xamante ni si nii en tout cas euh, député ya fay dem danañu sénégalais danañu ci gis seen bopp danañu xam ne ñii kër ñoom ñoo leen tànn yóbbu leen biir assemblée nationale mais ba pare nag. tourné jël seen i gët teg leen ko di leen ko xool euh, ba xam nag euh, li nga xam ni tey parce que la woon woon ni na de mhm. la fi amoon muy nga gis nga képp ko fi yorati mandat mhm. wala nga yor euh, yenn ci direction yi ak lu mu mën ci doon léegi Sénégalais ci boppam ñoom ñoo lay ci xoolal seen bopp ñoom ñoo jël seen i gët di ko di di la ko teg yow ba xam mhm. en tout cas projet bi nga xam ni tey moom la Sénégalais yi fal te mu nekk fi ñu koy doxal yow di nga ci dox wala doo ci dox ko defee nag après sénégalais ñoom ñuy apprécier mooy tax ki nga ñii xam lu tax nanu ñu am yenn jafe-jafe yi bu ñu tegee lépp ci yoon mooy que ni. Mhm. képp ko xam ni da nga jalgati yoon. jërul sax sénégalais yi dañ koy xam ci saa si gis nga boo ko mm-hmm. boo ko dàqee wala nga limogé ko du am benn coow parce que sénégalais dañuy xam que ni seen normal mm-hmm. moo tax ma jàpp ni kenn ku nekk ci ñoom lépp looy man di def euh, na ko teg ci yoon muy jub jubal jubbanti ki nga xam ne en tout cas moom la ñuy wër su ko defee euh, problème bi man gëm naa ni réew mi dina lu neexee defar lay doon mm-hmm. bare nii rek commencement bi nag euh, parce que tout début est difficile mën a métti mais gëm naa ni lu nar a neexe defar la insha allah que dañuy dugg ci trajectoire boo xamante ni si ni yow en tant ci mën a bañ a jaar c'est c'est c'est ça ça sera obligé par force da nga jaar bu defee nag lépp dafay jub sàppa yi naan rang yi jub euh, su ko defee dañu naan nojj ci yoon bi euh, léegi nag ndax dox bi day gaaw wala day yeex mhm. euh, foofa lay foofa lay nekkee incha allah. en lu lu lu lu askan wi di di sàkku régime bi fi nekk ñu. Euh, jox leen une majorité ci assemblée nationale et su boobaa gëm naa ne cest à bilan bi yi ñu ciy wax ak yu ci bëri yoo xam ne diggee woon nañ ko ak sénégalais yi. Mm. yu ci bëri yooyu benn blocus actuellement moom moo nekk ci seen kanam moo ñàkk am majorité présidentielle parce que ni nga ko doon waxee léegi par exemple ci seen programme ñu proposer lu mel ni euh, dissolution au conseil économique social environnemental. Mm-hmm. dissolution au conseil des collectivités territoriales des institutions yoo xamante ne koppar jën cee dugal. Mm-hmm. bu fekkoon ne dissoudre nga ko meeg. alal jooju noonu tey mën na servir leneen ak leneen ak leneen ci biir réew mi et loolu da dafay permetre tey jii nga mën a euh, wàññi bu baax a baax train de vie de de de de mhm. mën koo dugal ci li nga xamante ne ni moom mooy priorité wu Sénégal yi xoolal tey supposons rek nga ne alal ji ngay dugal weer bu jot ci ay salaire ci au conseil des collectivité territoriales li ñuy dugal au euh, conseil économie social et environnemental tey jii supposons rek ñu ne alal jooju yëpp léegi dañ koy xaalis boobu dañ koy yóbbu directement ci lu jëm ci wàllu infrastructure yu jëm ci wàllu santé mais xoolal weer bu jot bu nekk ñaata la daan dajale ci xaalis boo ko dajalee at bi ñaata la daan nekk ci koppar donc pour man loolu juste loolu ça te permettra nga régler nga mën a régler problème yu bëri yoo xamante ne mais institution yooyu bañ koy créer lan la mooy sama coalition dafa yaatu il faut que ma créer yenn institution yoo xam ne amul benn njëriñ kenn xamul lu ñuy liggéey liggéeyuñu dara amul benn sens mais daal dama koy def mu nekk benn institution boo xamante ne dina ma permettre mais si sama ay euh, ñi may àndal ci wàllu politique ku ci nekk ma mun laa caser. Mm. kii ma yóbbu ko conseil économique social et environnemental kii ma yóbbu ko au conseil des collectivités territoriales ku ci nekk en tout cas da ngaa jàpp si xeex bi te il faut que may créer dara même bu dee li nga jàpp amul benn njëriñ wala servir dara Sénégal ma teg loolu ci sa loxo. fooy mos fooy mose. da nga am da nga toog di fa mose weer bu dee sa ay nit yàgg sa ay nit man man man ce ce qui mooy toog naa benn bis bëgguma tudd nag euh, turu kenn mais ma ma toog fa ki nga xam ne mooy leader bi nekk ci gox bi. benn quartier la fii ci Dakar ah. ministre bi fi ñëw parce que ñaari ministre sax ñoo fa ñëwoon. ki nga xam ne moom moo fa ne c'est maanaam ay discours yoo xam ne yow ci sa en tant que ndaw boo xamante ni si ni am nga tuuti conscience ci sa bopp. da ngay mm-hmm. ruus fi nga toog. parce que ñoom jàpp nañu ni seen lépp mooy que ni jël benn nit dooleel ko maanaam mm-hmm. tuur ko xaalis bu bari su ko defee moom muy mën di jël ay deux mille cinq cent ay cinq mille francs di ko jox ñenn ñi nga xam ne mm-hmm. ñi ngi paay ak maire yi nga xam ne ñi ngi ci gox boobu noonu mm-hmm. ñoom ñoom loolu la ñu jàpp ni c'est ça la politique moo tax affaire bi choc bi ngay wax sànq c'est-à-dire ci ci présidentielle yi c'est-à-dire bi foofu la jógee mooy ñoom jàppoon nañ ne Sénégal xamuñu ni compliqué <laughs> amal sa 2000 francs yu bëri ak seen t-shirt nañu romb nañu foofu bu yàgg xamuñu ni sénégalais yi ak ndaw yi léegi dépassé nañu foofu bu bu bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñoom xam nañu que ni lii nii daf leen di tardeel te lé yelwaar doon wax rek mooy ndimbal lii ñu ñuy jox moo ñuy rey maanaam benn baaraam boo ko tàll tàllee ñëpp xam na ni joxañ la mais juróomi baaraam. Mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla jox ma la waan la. Mm-hmm. te chaque jour nga bëgg di dëkk di tàllal dem ci lii diw jox ma li nangam may ma li nangam. Mm-hmm. mais bu yàggee sa dignité ci boppam sax la ñuy rey summi ko ba mu ba mu set. wecc parce que mooy tax ñi nga xam ni ñoom ñu les hommes politiques demoon nañ ba mujj respecté tuñu ñi nga xam ni ñoom ñooy les mais y avait un homme politique un ministre ci régime président Macky boo xam ne raison ba mu dëkk lu mu leen wax xam lu mu wax. parce que population dañu mujjoon di jooytu naa ministre boo xam di toog ci di toog ci dëkkam. lu mhm. lijjanti askanam. bi wax yi di law ba àgg ci xam lu wax maanaam ñi ganaar lañu rek heure ma leen soxlaa sama dugub laa yor moo ko suyee ñu ñëw c'est-à-dire ay mhm. ay propos yoo xamante ni si ni boo ko daan dégg. Mhm. da nga daan am lu la metti mais ci beneen côté da ngay xam ni. askan wi lu ñu leen teg ñoom la parce que nag vraiment ñoom ñoo nangu ñoom ñoo accepté pour dire vrai ñoom ñu accepté yenn yi mm-hmm. élection day ñëw moom ay porte à am lay def day dikk toog ak yow waxtaan buy pare yëkkati dara bàyyi fa nga am nga compl am complexe bu boo xamante ni si ni yow da jënd sa conscience c'est-à-dire doo sax comprendre des fois ñenn ñi quoi moo mm-hmm. tax da ngay toog ba mu yàgg nga ne ñun lu ñu dal ñun la parce que yenn ñun ñoo ko yóbbu suñu bopp. pour mhm. dire vrai lii mooy tax tey ñi du ñu ma sa respecté te du ñu mës a jóg di sàcc suñu xaalis parce que dañuy dem sàcc lu ñu gàññ ñëw cof ci as lëf. Mhm. compal la ci tëj sa gémmiñ euh, yow nga dëkk ci seen i waaw ak di def li nga xam ni moom moo leen neex moo tax tey. man dama gëm ni Ousmane Sonko ak le président Ousmane Sonko sax am personne. Mhm. dafa ñëw indi benn discours éveillant boo xamante ni si tax na maanaam. moom ci boppam moo yee ndaw ñi moo yee sénégalais mais moom ci boppam moom mi leen yee sax mënatu leen a nax. Mhm. foofu la maam foofu la indi réew mi jamono jii nii. Mhm. moom dafa ñëw fekk ndaw jeunesse bu doon nelaw topp ay làmb topp ay simb topp ay football. xoolal léegi tey combat bu mag a mag tey am ba ci jours yi doo sentir sax ni komba am na. Mhm. lu ko indi. c'est parce que y a un leader politique qui s'appelle Ousmane Sonko bu am influence bu am doole ci ñi nga xam ñoo ji ndaw ñi euh, tey tax na ndaw ñi di intéressé di intéressé woo ci seen gasoil euh, gasoil la ci seen gaz mhm. ci seen pétrole Euh, ci seen ay ressources muy or beeg zircon beeg yu bare ressource yu bare bare yi nga xam ni tey euh, suñu dirigeants yi dañu daan nelawal. pour mhm. di mën a euh, di assujettu devant les puissances étrangères pour di ko mën a épuiser di ko yóbbu ñoom liñ ci am daal doy na leen ñoom ak seen njaboot. bàyyi mhm. askan bi di dee ci ndóol saa bu ñu askan bi xiifee bu bëgg ñu génnee seen saaku ceeb bi noo doy lu jox leen. Mhm. askan bi ni yii diw moo baax ñoom ñu jàll ci leneen alors que ndaw yi léegi xam nañu que en réalité. vie meilleure ba ñuy wuti bitim réew. Mhm. ñoom mën nañu ko am fii ci seen réew. parce que la mhm. fa am lépp fii la jógee. moo tax mhm. ma ni euh, ñoom yeewu nañ yeewu goo xamante ni si ni kenn mëntu leen a nax. te euh, jël nañu seen ay responsabilités te nag maytul ma ndaw bu jël li nga xam ne mooy ay responsabilités. am na solo. baax ak Kébé <laughs> ñu daal di àddu rek ci euh, le PM Ousmane Sonko gis nañu itam ni ki démb daal di nay dalal kii di le vice président bu Gambie ñu koy wax Mouhamadou